Last but not least, donc comme ni ngeen ko gisee tey euh, dañ doon dox ñaxtu li ko waral nag moom mooy la hausse des prix de l'électricité bi nga xam ne nit ñi tey en tant que askanu Mbour en tant que askanu Sénégal nanguwuñu ko donc soo xoolee récemment euh, luñ ñu digéem ba ñu nga xam ne nii tey fan nañ Macky Sall euh, yàggul dara nekkul ne que daf ñoo waxoon ni suñu yéegee dina yokk prix de l'électricité tey ñëpp sonn nañ ñu gis loolu sentir loolu noonu ba tey ñu waral mobiliser wu en tant que jeune mobiliser wu en tant que parti politique mobiliser wu en tant que mouvement associatif donc pour mun a dox ñaxtu ñëw nañ ba si euh, buntu préfecture préfet génn na jox nañ ko suñuy doléance wax nañ ni ko euh, que ni ñun ànd ñu si lu ñu loolu ñu naqari déjà le fait que ñu yokk ko moo ñu naqari déjà ñu constaté ko si mois de décembre bii nga xam ne moom lañ génn que ni factures yi commencé na yokk déjà lu si topp nag si leneen suñuy doléance moom moo nekk le fait que ñu jël suñuy camarade, yi nga xam ne ñoom ñooy Guy Ousmane Sarr ak Fallou Gallas Seck yi nga xamné ni japp nañ leen té ñom luñu doon def mom moy ñu luñu def ni tay ñom luñu defoon mom moy demander à ce que dañu bëgg marché marché ba dem ba ci grip palais de la république bo ba légui ñu ngi leen di ah, dañ ci leen fo xamné ni tay tey yaakaar naa ni ko nekku seen place tey ñun fu taxaw ni ñom fi lañu waroon taxaw di xeex ak ñun malheureusement nekkuñ fi nak mais ba légui ñun ñu ngi leen di taxawal di leen xexal di leen kassal di leen wax ni que détention bu mu té boobu noonu téebuñ leen téefum noonu c'est arbitraire japp nañ ni que tay